Bonjour, comment ça et comment santé jërë ngeen jëf ñu dikkat yi lépp loo xam ne jëm na ci wàllum wér-gi-yaram beneen yoon ak jinjeer jinjeer mi nga xam ne dafa baax lool ci suñu wàllum wér-gi-yaram ndax junjeer dafa bëri ay ferñeent te dafa bëri li nga xam ne moo di ndox ndax moo tax junjeer mën nga cee am jus bu baax ibil boobu moo tax ñu mën cee am ay diw yu bëree bëri te boo ci jël rek daf lay daal di indil njariñ lu baax junjeer dafa am li nga xam ne moo di gingembre gingembre boobu moo tax mu am li nga xam ne moo di benn gu gu boo xam ne boo dafay faral di we xam ne ne santé nañ ko ci junjeer ba tax am na ñoo xam ne xamante ne sax pertan euh, boobu dañu xaw a ragal ci moom mu nekk nag loo xam ne tamit dafa nekk lu baax lool ci suñu wàllum wér gi yaram junjeer dafa baax ci lépp loo xam si ne dafay metti ci ndax dafa baax lool ci yenn metti yi ndax bu fekkee ne da nga amee bopp buy metti nga jël xam ne moo di junjeer di ko def di nga xam ne moo di jus di ko naan lu bëree di pare nga euh, jël pare nga tucc tuccal ko raay ko li nga xam ne moo di bopp bi da nga ci di gis njariñ li bu baax a baax bu fekkee da nga amee rhumatisme dañ naan la del defar junjeer di ko def jus di ci naan lu bëri bëri pare nga ticc ko di ko diw ci fépp fu métti da nga ciy daal di gis tamit njariñ la bu baax bu fekkee ne tamit nee dangay nekk xam ne dangay gaaw a fàtte di fàtte lu bëree bëri dangay daal di jël li nga xam ne moo di jinjër nga di ko def ji di ci naan di koy faral di naan lu bëri dina defar sa mémoire bopp boobu ba fàtte boobu tamit eh, dina ci jinjër dafa baax ci li nga xam ne tamit moo di put bu fekkee ne tamit dañ naan la del naan jinjër lu baree bëri dañ ne day raxas sa put bu baax bépp salté bu mu fa fekk tamit da koy jël li nga xam ne moo di junjeer nga boole ko ak limon leen boole da ngay di gis njariñ li bu baax a baax junjeer kon nekk loo xam ne bëri na ay njariñ lool ci biir ba ci góor gu néew kàttan sax bu fekkee ne da nga nekk góor gu néew kàttan nee nañ di jël junjeer lu bëree bëri daf lay daal di dimbali glycérol boobu ñu wax dafay daal di rey lépp loo xam ne daana téye si dit bi foofu ba dalay daal di euh, defal ndimbal bu baax foofu sax même jigéen ji ci biir néegu sëy bi te di xawal di faral di euh, taayal tamit dañ naan la boo dee jël junjeer dina la indil ak euh, jawat bu baax a baax jinjeer kon nekk na njariñ lu bëri bëri nekk am na njariñ ci lu bëri te mën nañoo dimbali tamit ci lu bëri bëri euh, ci yoo xam si ne euh, xeeti jàngoro yi na man ñu dolli ci suñu wàllu wér gi yaram ci lu bëri bëri ndax jinjeer lim fi lim népp ne dina koy faj ak yeneen yoo xam si ne des na dañ leen te tànnaloon lii rek jërë ngeen jëf mbokk ñi bàyyi xel li leen indiloon ci suñu wàllu wér gi yaram jox dig daje ci beneen yoon